bërja il faut ma dem Hollande. leen te man mosuma dem Hollande. Hollande. waaw Hollande googu daal bëgg naa caa dem. Ah, nuyu ma waa Hollande. voilà ak waa ak mbiskit Bisco. Hmm. sama sët bi dinaa ko may Bisco yow kii. bébé su bébé su kay waaw. Bisco moo leen di may seen émission bu mag bii di tës. Bisco. Bisco mooy sponsor. parce que dama ko gisagul. no Bisco waaw ah, mais waaw mais c'est que indi Bisco fii nag. Fatou Ngaye waaw mais parce que lii nekkoon ne xale yi. ba mu ne naa ko indi ba tey demat na ëpp na une semaine. ah indi fii Bisco nag ñu daal di ci. Ah, tax kam yow tamit nag ah, dafa différence. war a def nag différence. alaaji. waay lay bàyyil Fatou kii. muy sponsor émission bi. dañoo am suñu benn jabaru xarit. jabaru moor maam jaara tudd waaw waaw on ne ne eh, keroog dañoo taxaw ca kilin oyel jëfale ca bureau doore ba géejawaay waaw mhm. day jaay kafe kafem gi neex na lool oo da ciy def li ngoom mag lépp ah. waaw waaye jaara daal xam naa ni daal mhm. dañ ko ñaanal yàlla daal diggante moom moor gën a dëgër daal ndax jaara daal xam naa ni bëgg na moor lool Mor la na borom këram waaw mooy borom këram waaw. Ah, bëgg na ko lool wàññi. léegi nag ma ni il faut nag ñu daal di koy jàppale. ma ni du ñu takkal ko wuju. waa kenn du ko takkal wuju alaaji. alaaji alaaji jaara moomu. Mamy eh, dafay tolluwoon diggante. léegi ba fi tollee di toll diggante yi goo xam ne nag daa reetaan lu lool way saa yi bu rombee baaragee kilin oil rek waa ji ko cinq sama waaja ana mu moom. <laughs> ni ko ni ko buso ah ñu fii ngoon am loo souper comme que ci station bi lay jaayee café bi. waaw ndeysaan. boo rombee rek baare ni ko ni ko ni ko nii junni duut Bousso. Mhm. Eh, bu ngoonee duut rek junni. Mhm. Bousso nee na ma Amet yàlla dogal ma wasin saa bu ma rombee baara xool ko xoolaat ko baara du wax dara saa bu ma rombee xool mu ne ma man tee maa ëmbaat. <laughs> baax na ni mu doxalee ni mu doxalee jaaduwul nag. sama ndey. teraa nga day continuer quand même. non ah mais alaaji. ah léegi ma ne ko mais yow. juróom-ñeenti weer yoo xam ni saay boo jaaree. Ah. baara laal la cinq mille. mais yow kay loolu kay nag bu sonn ak nañu waxante dëgg nag. yow benn weer bi rek cent cinquante mille. loolu benn essentiel journée. mais xamul woon ni tax. Ah, mais ah, jar na ko de. waaw non ah. <laughs> laaji kooku jar nañ. ëmb jar na ko waaw mais xamul woon boo ko dajalee am business bu taxaw. mais xamul woon ni ëmb bee tax. laaji kooku kooku kenn du ko am di planification. familiale ñetti ëmb ngay am rek business bi taxaw na. moo tax daaw ko alaaji daa foogoon ni. ëmb bi taxul moo tax sakkanalu ko. waa <laughs> ah wala. sa waay lii ko ah, net la. non ak. Ah. waaw <laughs> ah, eh. non non mais ñetti doom am. mais ala mais bu bu xamee ni muy réglé cinq mille cinq mille yi. ñetti doom bu ko ci amee rek réglé business am bu taxaw. waaw non ma ne ko. Hmm. léegi nag ma ne Cheikh Mbacke magu Baara Gueye Kilin Oil ma ne ko kii euh, Cheikh Mbacke. Hmm. ah bu soon nag nañu waxaat ci moom nag mënuñu koo seetaan nii. ci koo xam ne dañ koo tàmbaloon salaire. bëccëg cinq mille. xam nga li ma la wax. mu ne ma ah nañ toog rek xëy na bu yàlla defaatee daal <laughs> euh, lu gën. Ah, bu yàlla dogalee mu. Cheikh Mbacke li wax du solution. non defal da non attendez non defal nañ. Ah. bu yàlla dogalee gone gi dem bu dëgër. ba mu mu mu mu kiyaat euh, bu ko defee. Ah. ñu koy defal alaay déglu ma rek. <laughs> ñu koy defal cëg dix mille. rek mu ne nii. ah ma ne ko ah bu soo dégg nga li Cheikh Mbacke wax. nee na bee bëccëg cinq mille. lala la baa rek ay clean oil doon defara waaye bii yoon bu ko yàlla dogalaatee. bëccëg di mille ngay laal. Eh. rek mu ne eh xaaral ma gisee ak Mor. Mor Mor. léegi lu mu naar. ne xaaral ma daw gisee ak Mor. pour lan rek daw jéggi tali bi. pour lan. <laughs> Eh, ah xanaa ah, ëmb bëccëg loolu la ñuy ëmb ah. woo Mor la ñuy ëmbe. mais bëccëg eh bëccëg dix mille. waaw ah. bu woowee Mor nag. Ah. noonu la ñuy ëmbe. bëccëg dix mille Lamine Gueye. déedéet man woo Mor gi kañ mooy sama problème. non mais waaw ma jëkkër ji lii man du ma ko tayee la man la yaa ko tay nag. déedéet tayu ma ah, a man woo. waa ji pour la non ndànk ah. lay boo fi dof. <laughs> waaw yow xaw ma de man may xale xaw ma li di wax doy ma leeral. ah trois cent mille ba muy juróom-ñeenti weer lii day fo. yépp ma ko taay la calculer waaye yow. bu soo waaye yow kii waaye yow. nekk ca. Eh, wuy ma. Boussa nag de Boussa li ñu ko dig nag ku ñu ko dig nag boo saa gënee mën ngaa këfin de. ñetti yoon ci ci ñetti at. mën mën nef de. mooy loolu day caaxaan loolu day fo. waaw yow buñu waaye nag na am xelum nag euh, euh, di dimbali waa nu waa ji tudd. Mor jàppale Mor ci ci xalum tudd mi. Mor kay moo dugg soxla. ci xalum tudd mi. alaaji man de yàgg naa gis jigéen yoo xamante ni tarkal tarkal bëgg borom këram de waaye day xam naa ne. ndeysaan bu mu ko nii gars yi ne ko non dafa bëgg Mor nag mu ne mii moo ma yar. ah mais nag Mor damaa yar ma ma nekkee gone léegi. moom la ko boppam nag aw ma ko dul Mor. déggal day dóor day dóor xoolal bu ko takkal wujj lay bañ. <laughs> non mais daal. Uh-huh. bu so daal foofu daal la mujjee ak ñoom daal man daal fi nekk nii. mu teg diimi bi. Ah, jar na ko. loolu kat moom sa moom xanaa bu daganoon. jar na moom sa waay ñu jagleel nañu wàllu ëmb gi nga ni. jar na ko de. ah salaire ministre a waaw dëgg la raada ministre la deux millions sept cent day caaxaan. waaye waaye. waaye période ëmb bi yëpp la de. waa période ëmb bi la. ministre nag weer lay fayeeku de. non période ëmb bi alaaji baaxul. mois mois deux millions sept cent. trois cent mille. trois cent mille. waaw baax na ci. trois cent mille. ci ëmb nag. mais yow alaaji man daanaka man man bu soo moomu kon man man euh, xaw na maa ëpp salaire bi. waaw ñaax ca la nag ah? la. ah waaw samay moom samay trois cent dafa mat. ah mais alaaji tësu tey bii. est que duñu ubbi antenne bi. tësu tey bii tamit affaire bi garaaw na di. Ah, man ah, day lii de laaj na débat de Lamine Gueye te su tey bii. Mm. xaaral ma communiqué ba pare en tout cas day en tout cas day doy na waar de. Mm. boo jéggee farafeñi daal di dem Sooma boo jéggee bag di dem. Mm. Hmm. na waar de. kii ah en tout cas doy na waar de. doy na waar ko moo tax mu miis dëkk bi. non doy na waar sax nag doy na waar de. alaaji maa ngi wax ak yow faale woo de. Ah. dégg nga sama waaj nee na ma Ahmed na moor doxal ah, waaw <laughs> na bu sa jàpp nii moor jàpp ne ñu doxal <laughs> ak ki des sëñ Mbàkke <laughs> sëñ Mbàkke ba participer voilà waaw moo tay jàpp nii bu sa jàpp ne sëñ Mbàkke mm. kii ñu mm. participer ñu doxal rek ah yow

Euh, lan la réeré ni ci benn taksi ah, kii moom lanam moo réer ni liiral ma lii mbind mii day xam naa ni léeg-léeg day ma tiim fi ay mbind yoo xamante ni mu ne lanama réer maam Ayta Dieng nee na daa réer li juróom-benni palaat bokk na ca ñeent motif képp koo xam ne gis na ko nag na woo Euh, na woote ci 77 527 48 85. ah yéen ñëpp yéen a ngi yéen a ngi seen sëgg bi yàgg na bi Lamine Gueye. lii lii livré la. alaaji jëlal ñaar ñee mënuñ ci dara ak man muy ñett. sëggal ci loolu xool ba xam yàlla ji xëj na yow mu dimbali na ah. waaw livré la de. lii livré la. ah maa ngi di jamono wér. sama tukulóor bu baax bii Mamadou Dia doomu ndeyu Baba Karaas alaaj liiral ma loolu ma xool loolu livré li loolu livré lii alaaj dangaa juum bon xale bii nag alaaji kii rek mënoon nañoo jël seen waa kër tës roqoye kase mii alaaji roqoye kase mii daal ni mu réeree doy na waar ñaari at la am deux ans livre doomu Malène Cissé ak Ahmed Kassé deux ans kii xale la de mi ngi nii gis na ko xale baa ngi nii. rox ay kase nii kii xale la. waaw wàq naa ni mu zaat fële ci géejawaay képp koo xam ne gis na ko daal waaw na ñu dimbali rek ngir yàlla wooñu ci 78 158 24 29. waaw wala nga indi ko fii ci rajo bu mag bi. livre la de. Hmm, baax na ah, communiqué yi moom tey dañoo bari ah Chimère. te su te su tey bi anam dafa tëju. te su tey bi alaaji dama ne la débat la laaj daal la seen chéri nogal ñu ngi koy eh, maa ngi sant ñëpp. waaw waaw waaw ñëpp xanaa walaay ñu ma jàppale ci. waaw waaw bi sant nañ la bu baax a baax ñu bëri wax nañ ma wax dëgg yàlla. ndey sama moo saa ndey bokk ndey bàyyi saa ndey topp ci moom. na koy àll ci àjjana yi gën a kawe bi jaay sa diw. amiin amiin waaw ñun itam démb nag am nañ fële benn dëj. alaaji. Hmm? waaw xamante ne nii nag euh, Daba njaay mii. waaw mardi. mardi mhm. waa démb la. lañ ko denc fële ca ca Touba. Daba Ndiaye doo tax na ñu ngi jaale daal ñoom mère Codé Diop ak ñëpp. Mhm. seen ak ñoom Adja Codé Diop su koy Ndiaye. Mhm. ak ñoom Ama Ndiaye Gassou Ndiaye Touba ñoom say ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di jaay. dëj dëj dëj bu méttee méttee sax waaye nag borom bi moom. waa ji noonu rek lay. wallaay wallaay wallaay ah. tës bi. communiqué la alaaj. waaw sama <laughs> boobu moom da fay. ëpp naa def alaaj. ah, ah. sama ginnaaw tool la rek jabar la. ah kay waaw ah, bu def ah, boîte à bijoux la fàtte ci benn taxi ak ñaari basketu xale ak ay yére xale itam euh, mu ngi jëlee woon bon mu ngi gëj a remarqué valise bi diggante Thiès ak dakaar Ndeye Penda Diagne la tudd dëkk parcelle unité 6. jërëjëf téléphone am 78 381 61 30 73. ko gis nga dimbali ñu ni lay rasuli indil ma ko fii euh, seen TV. ok kii moom Samsung S8 la nee na couleur bu rose képp koo xam ne na gis na ko na woote ci 77 631 58. 77 631 59 73 dañuy wàññee kii euh, communiqué kilomètre yi. Chimère. waaw kii. alaaji jabar ji moo wax te su yi may waaj a dugal jabaram ah, nee na jëkkër ji daal ci kaw gàttal da doon tukki xam naa ni daal jaawale nañ ay saak saagu jëkkër ji ak saagu keneen xam naa ne boo demee am njaawalee ca am waaw am ñuy ubbi saag ya saagu jëkkër ji mu téye nag ay kilo yàmbaa nga ca oh! mami dégg nga loolu yamba jànga ca ah léegi nag jàpp nañ ko teg nañ ko loxo yaa moom ak moomoo jooju daal xam naa ni enquête a koy wane waaye nee na du saagam te ci loxoom lañ ko fekk waaw ñu déglu jabar ah, waaw waaw nañ ko déglu bi mooy sama borom moo demoon Casamance depuis le bi passé dafa defar photo yi photo yi 31 ban avril bi waaw avril bi dafay defar ay photos yi di yóbbu di jaay mu defar te photo yi bu trois places mu dem yóbbulul kooku muy ñëw mu ngi yore benn sac de voyage. def commande la woon kon. ah kon dañ ko commandé woon. waaw dañ ko commandé woon mu defar mu yóbbu trois places léegi bu mu demee muy ñibbisi mu sonn léegi sac de voyage bu mu bootoon des quelques yëre mu uuf ko ni si digg tànk bi mu ngi nelaw mu sonn mu ngi nelaw jékki-jékki ñëw ba soomaan rek ñu yee ko ñu ne ko sëñ bi lu nekk saag bi mu ne sama yére mu ne tëjjit mu tëjjit rek mu fekk si ñetti kilo yàmba mu ne i yow nga yóbbu ko Banjul mu may woon naa ko jamal si ñoom Ahmed Aïdar ak Mansour ak Rahmatullah ginnaaw yàlla ko dimbal te yàlla tax sonn mais ko ne ubbil saag bi euh, moom ba mu xoolee xam na ne du saagam lan moo tax waxu leen ni bu ko ubbee du sama mu ngi ay si ay nelaw jékki-jékki sëñ bi lu nekk saag bi rek la ñuy wax mu ne sama yër mu ne sa mu naan gëjit ubbi xoolul sax mu ngi nekk si ay nelaw. mais xam nga saak yemuñu luñ ñu ko uufal uufal beneen. déedéet si tànk ko teg. sac de voyage bu bu yem rek bu yem bu def ñetti ñetti yére bu ñu ko waxee giddi yóbbu mu tijji rek mu naan i ñu ne ko yow nga def li nga def par mu naan naa i mu ne ma saak bi moom ma ko mu ne ana saak mu ne sama yére moo ci nekkoon te mu ne ku ànk nekkoon sama wér ñu sa nekkul sa wér sa nekkul sa wér wàcc na. mu ne kon moom moo yóbbu sama sax mu ne fii mun a fee rëcc ndax yow la ñu yóbbu ko soma trois jours mais xam nga ñaari saak yu bokkul automatiquement di nga am problème pour ubbi benn bi parce que xam nga ne biiru sa saak yow li nga miin ak li nga miinul du benn waaye saak yi voyage bu saak bu mag mais saak yi ñoo nuroo kon waaw dafan day saak bi xanaa nekkul benn mu ne saak yi benn la ñoo nuroo mooy saak ah, saak bi mu ne sama yére mu ne tëjil léegi ma nekk nañ ko dimbali. xanaa ko da koo topp ba xam saag bi nii mu mu mu xàmme ni ki ñoo niroo saag xaama def ko ko wala lan. waaw xam naa ñoo jugee ndox Casamance Casamance lañ jugee ndox ñëw ba Soma ñu def ko loolu kooku dafa ñëw di jubal si moom directement est-ce que kooku wàccul dem boole ko ci ndax si buntu police bi lañ taxaw wàcc directement ñëw directement yee ko. bu ko yee moom kon bi ñëw dañoo jubal ci moom. dañoo dañoo jubal ci moom. ñëpp jaaxle nag te ki nekkoon ci wetam wàcc na léegi bu ñu ko waxee loolu mu tëj ji mu fekk loolu la mu wax wax ba sonn ne déedéet. ki ci moom fu mu wàcc. xamul moom mu ngi nelaw. Sooma fan la. Sooma mu ne boo jógee fii boo jéggee ba bag bi tuuti. Mm. léegi mu nekk ajjuma ba dimanche. mooy Sooma ci Gàmbi la. waaw boo jéggee bag bi tuuti waaw. léegi kooku noonu euh, oto bi moom euh, oto bi ñu jël Casamance la ko jëlee. Casamance la ko jëlee ndax. horaire bi fu mu doon daw Casamance fan. déedéet xam dañ ko dañ koy may mu woote tuuti mu dagg ndax moom numéro am du dem kooku moo koy woo léegi lan ñu yóbbu ko Banjul. mais normalement boo jógee Casamance oto Dakar direct ngay jël. oto Dakar oto Dakar la jël kay. oto Dakar la jël moom kooku lu tax mu wàcc yoon bi nag. li mu def moo tax mu wàcc. xam nga boo nekkee yett baa nga def njublan foog nga wàcc. léegi nag moom may woo nee moom dafa defoon pour ñaari fan man maa ngi nii feebar toog di ko xaar nee naa ko ñëwal ci Ramatoulaye ak Amel Aydara ak Mansour nañ ko jàppale te yàlla tax ginnaaw yàlla mu ngi yaakaar ci yàlla yaakaar ci yéen. léegi moom téye nañ ko. waaw léegi mu ngi Banjul depuis lundi ba tey. bu police bi la nekk foofu wala defeere nañ ko ci kaso bi. déedéet daf ma ne mu ngi Banjul xam nga dañu koy woo jékki-jékki mu dagg sànq démb suba daf ma woo moo tax démb ma ñëw fii ñu ma wàcc nga démb 10 laa jóg 3 yaa fi yegg si fekk wàcc ngeen maa ngi ñaan ndimbal na dafa feebar. jigéenu wérul la. Hmm? <laughs> sama doom bu am mais moom xamagoo ba tey ci ban condition la nekk déféré police. xamagu ma defa ne rek maa ngi Banjul. mais moom lu mu bëgg ñu transféré ko euh, Sénégal mbala ñu seetal ko wecc ñu ngeen jàppale ko wax na ba sonn ndax lu amul seede wax na ba sonn te man naa def waaye mënu ma dem. nee na bu ma ñëw daal damaa feebar. muy dem lu yàlla xam doon dafa maa ñëw fekk ñaari ndax dama amoon rendez-vous sax dama waroon dem waaye ba léegi ngi ci yoon bi mu ne ma sama doom naan ma la ma ne ko dara. sa doom bi xamul la xew. déedéet dama ko déedéet dafa dem ñëwagul waaye su ma ko woowee boîte vocale laay jot waaye man xam naa lu xew duma ko wax dara ndax xale la balaa muy génn ci wax ci mbedd mi rafetul ñu ngi sàkku ñaan nag Alaaji Mansour Diop ak Matoulaye Thioub Ndoye ak Ahmed Aïdara ginnaaw yàlla maa ngi leen di yaakaar may jàppale ma te yàlla tax tey 6 heures laa jóge waat maa ngi bàyyi sama doom di nelaw euh, moom léegi moom boo ko jotee def ne lu mu la ma ngi toog kër ga su ma xëyee ma toog ay xalaat rek moo tax ma ne xaaral ma jóg 3 heures laa fi ñëw kooku mu ne ma wàcce nga ma ne kon xaaral ba 6 heures

kii du Mamy Samb xaritu Maam jaar ma ci clean oil. ah en tout cas day baax na. neewoon nga débat laaj de. police mën na ci mën na cee génnee communiqué. ah. non moom moom non. police Gambie moo ko jàpp wala bu Sénégal. Gambie. frontière ba ma day ca Gàmbi la bokk. xam nga ndaw si man man day benn kii moom ak kii ci kiyam nee dañoo wàcc di fuye mu yor saagam ñu ubbi ko nee na dañ ko fekk mu toog saag bi nekk ci diggante tànkam. nee na am na ku mu delloo moom la foog ni moo ko boole. mu échanger saag yi daal loolu la wax. mu nag moo nag boole ko. dafa jàpp moo ko boole waa même nit ki échanger sac bi. parce que dañoo ñëw jubal ci moom en tout cas am na tuuti ay incohérence ci wax la bi ci des euh, nee na waa ji mënu ko jot moom mënul jot waa ji waajee ko jot saa bu ko neexee. naan ko nee na premier dossier bu Amadou Ba mu ngi nii ministre des affaires étrangères. ak ñëw. <laughs> Al Sisi. président Al Sisi Égypte <laughs> fii ñaari dossiers la la Amadou Ba après le conseil des ministres la léegi ci ñaari yooyu lay jublu. Al ah, Sisi waaw alma surno yi. Amadou Ba. alma surno allah. su dossier gi nii ba transférer compatriote bi fii ci réew mi. man alaaji man incohérence man bi ma bi bi nee sama bopp bi man traumatisé man jéem naa ko laaj mais je sais pas xaw ma dafa comprendre question bi xaw ma mooy. Mm-hmm. xam nga bu ñuy jógee Casamance di ñëw horaire la ñuy jël boo xam ne. su la jëlee fële rek directement dakaar ngay wàcc si. waaw léegi naka la ñu def ba am arrêt boobu ñu taxaw ba waa ji mën a wàcc ci yoon bi parce que bu nekkee ni dakaar nga jëm gëw gëw ma ni am nga am nga benn xalaatu war a wàcc ci yoon bi jël saak yi échangé ci koo xam ne xamoo ko ci ban bu la wala da ko ko bëgg a ràng duggaat beneen oto. bu wàccee Dakar. nooy daboowaat bus bi. nee naa ndaw si yërëm naa ko waaye dafa bari ay incohérence ci waxam. pour pourquoi jël horaire bu jëm Dakar wàcc ci yoon bi ban sens la am. man dama man tey damaa mën a déglu de gisoo alaaji bu ñuy wax danaa ma alaaji déglu yow bul bokk ci waxtaan bi déglu. waaw dama déglu ndaw si. bi mu commencé wax rek ci ci saag bi jàpp loxo bi euh, dañoo dañ leen wàccee mu téye saagam ci loxoom mhm. benn dis dañ koo fekk ci oto bi jubal ci moom saag bi ci diggante tànkam. waaw. muy ñaari wax yi bokkul donc changé nañu saag bi entre ba ñaar saak dañoo ndiroo alaaji naka la waaji def ba xam ni Mansour mii may dugg ci bis bii dina niroo leeg man saak ba ma dem dendeeg Mansour pour mën a weccoog Mansour saak li ah na eh, am na ay nawdi en tout cas jëkkër ja daal boo bëggee dégg dëgg alaaji hmm. ma nga bitim réew léegi nag ki dénk Sénégalais yi nekk ca bitim réew di Amadou Ba tey lay dem conseil des ministres bu njëkk RTS tey dañuy filmer waat xam nga bu gouvernement changé RTS tey dañuy yóbbu seen caméra après léegi yooyu la ñuy bëgg di tag chaque crédit ci guddi tey dañuy dem filmer dinañ filmer amadu Ba ñu tegal ko bantam boobu bind ci ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur. Hmm. voilà léegi nag bu ko defee bu jubloo ci bu jugee ci conseil des ministre bi. ñu ci sénégalais xam nga ak ak même bu doon waa ji jaaykatu yàmbaa la sax alaaj mhm. ah? mhm. doomu Sénégal la mhm. mën na ñaan transfert waaw ñoom ña nekk ca bitim réew te def waxuma ne day jaay yàmbaa de dama ne même bu dee damaa teg bu dee voilà waaw kay léegi nag bu bu Amadou Ba pare daal na jublu ci lii bu ca paree suba ci alxamis ci alaaji ak ginnaaw suba àjjuma mu jublu ci président égyptien bi de Abdel Fattah al-Sisi bi ñëw fii ci réew mi xam nga li ma léegi nag wala léegi nag bu ko defee loolu moom waaw kay baptême de feu pour Amadou Ba waaw kay waaw kay enquête sax bind ko ngook nag ngook ngi noonu nag léegi daal xam naa ne daal doomu Sénégal gi daal nañ ci wax Rahman Diallo nee na ma beaucoup de gens préfèrent faire des étapes pour se à Dakar c'est vrai jël lii jël lii mais soo jëlee oto bu jëm directement Dakar étape bi lan la war a nekk foofu comprendre ma sincèrement kii ne ma ah, est ma amul escale euh, oustaz moom nee na ma buñ duggee excès si bac bi dañuy wàccee ñëpp hmm? mais euh, dañu fàtte pont bi xanaa pont bi directement la. waaw pont farata am na fa de. ana gars yi dañoo ñëw. kan ak kan la. El Hadj ak euh, Mor waaw Aba ci loo ne. maa nii rek El waaw ah. kii kan lay wax. ah lay laaj kii. yow lay laaj na da ngay kan mooy jaay oto mu ne. ah Ndiaga Diouf Ansaarullah ñu ngi koy nuyu dégguma li wax de. dani mu ne ndax da jaay oto. kan ma jaay oto fan. Kaabu Ndiaye maa ngi lay nuyu. dama lay gis ci concessionnaire yi quoi yow dafa mel ni. conseil conseil. oto yi. ni. ñoom maa ngi koy nuyu. kii di kan mooy Paris. ak Guy Diallo nga nga Abba mi lan lay wax nii. ah, ah xam naa liggéey pare. Ah? cravate bi ngay pare. ah d'accord ok. mu ne kan moo jaay oto alaaji. yo yow dañ la laaj ba. ñun ñett dañoo fi nekk. man man nga wax Abba wala. yow Mansour gis naa sa oto gis naa oto Mantulaay. waaw. gis na sama gis non da nga naan Mansour gis naa sa zeng gi. <laughs> Mohamed Mbodj. ñeenti at la am dafa réer. clando gi. Mohamed Mbodj ñeenti at dafa réer ku ko gis na nga ci soixante dix huit cinq cent quatre vingt et un quatre vingt quatre quatre vingt dix Mohamed Mbodj. xanaa kuy jaay oto kay yor nga yu bëri ñun de benn lañ yor ñun. wax dëgg yàlla. Mansour yow moom moo waxuma leen. mani mani. waaw allo. yaa ngi may déglu ci laal doon waxal ci laal doon waxal jamono yi daaw. waaw. li wax moom moom ngay commencé génne par benn benn lan ci. ah yi nga jëlee woon ci dëkk naar <laughs> musuma xam ni musuma xam ne kii kii soskat la léegi ah. Aba. oui dimanche matin da nga ñëw stade Amadou Barry dégg nga nga couvrir ko dégg nga parce que lii tamit manifestation sportive la dégg nga match la. ah la. final la final. mooy tournoi bi bi Dame nga organisé woon administrateur. tata yi. ah d'accord waaw waaw dégg bi. <laughs> nga xam ne capitaine bi mi ngi tudd Mansour Diop. ak ligne 38. booy jéey déglu rek. seen capitaine bi Mansour jóob la tudd. booy jéey nag mooy capitaine u ligne 38. Ah, le grand maire El Hadj ay Aydara lañ ko tuddee stade Amadou Barry. dimanche matin na nga ñëw. sama papa mooy invité d'honneur Alaaji Njogu Dieng hmm. inchallah président fédération départementale PDS jiite tam nekk kilifa yi borom tata yooyu nekk tam seen papa teg ca voilà ñooñu kooku laa kooku kooku man lañ ko pare ne moom repare na ne kooko waat <laughs> nga ni boobu dinaa na ñëw de non inchallah dinaa ah, foofu nag laa yem léegi foo leen ne nii voilà merci beaucoup yéen ñi nga xam ne nag yéen a ngi déglu ci GFM fu mu toll nii ak test rek bëgg nu mu gën a gaawee ngeen progressé ci Ndakaaru sànq rek jaax nañ rond point bu Liberté 6 tout autour ça ralentit pour ñu na mu jaaree foofu la des lenteurs tout autour de ce rond point a sur l'autre sens mën nga fa jaaree jël avenue Fat Ben Abdelaziz jaaree ko Walfadjri wutali des Eaux fekkee sur l'autre sens aussi mën nga bàyyi foofu wutali boulangerie a progressé Mamadou Fall Ambadiata ci rond point bu Malick Sy jamono ji am naa yi tax lu mu da ko ci rond bu RTS beaucoup de mouvement ñuy bàyyi ko ci autoroute bi également ci kaw échangeur bu Malick Sy bu ko progressé jaare ko ci rond point bi ci Grand Théâtre la également la patience impose ay agent ñoo fa nekk la également am naa yi tax ci boobu le bu Grand Théâtre Elage voilà merci beaucoup waaye grand assay maa ngi koy a wér a wér koñ la alaaji ñoom lay nuyu ah Sylvain Kogne. waaw Sylvain Kogne dafa bëgg ay grand yoo xam ne ñoom dañ ñu ma ñoo takk ñaareel <laughs> léegi man dama am benn agence. boo xam ne ni bii MMD mariage la tudd. waaw. man may waxaa may waxtaani may ñaan may xutba. ndeysaan. may jox information sa jabar te maa koy affronté si. waaye mel ni Babacar Sall. pour takk ñaaree rek la wala aaway bokk na ci. non takk moom takk de façon générale man damay ñaane rek. man damay takk rek. man daal li ma mënta muñ mooy góor bu toog ak i noppam jël dundam benn jigéen ak appareil ko. loolu daal dootuma tëdd nelaw mukk te loolu jeexul ci mi réew. ndeysaan waaw. ah doy na waar daal en tout cas war nañoo takk ah, waaye takk de waaye kii tamit jëkkëram ji sori na ko de alaaji de. te nee na ëmb la yor ëmb juróomi weer. moom daal gis ko yow. autorité yi daal. loolu moom je confirme dafa ëmb. xam nga non non non mais dama ne man waxuma ne jëkkër ji day jaay yàmba mais dama ne même bu doon tey day jaay yàmba daa nekk bitim réew parce que bu ne police ba ca Sooma. Mhm. kon ma nga ca gannaaw pont ba ma nga biir Gàmbi. nee na ma nga Gàmbi kay nii nii. waaw kay waay jëlee nañ ko Sooma ba yóbbu ko Banjul. très bien léegi nag suñu autorité compétente yi ñu dénk loolu te ñoom seen kàttan moom ñoom lañ dénk loolu ñoom. habilité nga ca war a wax te ne ca Gàmbi. Mm. en euh, commençant par son excellence l' ambassadeur. Mhm. alaaji. Mhm. jéem a xool bu dee waa ji lañ koy waxal loolu la. Mhm. jéem koo indi fii. jabar ji di ko teg bët mu koy gis. bu dee defu ko it nag. ah daal di ko waaw mais non attends loolu sax mu nag moom mooy hmm. mooy. Eh, xanaa boo reyee nit nekk bitim réew sax laa lay nii. parce que parce que boo déggee ci waxu. soxna si non non lan mooy du yomb. Hmm. waaw non waaw mais mais boo léegi ci waxu soxna si nee na nee na jëkkër ji ndax ma ñëw fekk si la fa jëkkër ji ni ko bul ñëw ndax yow xamoo fi kenn te jëkkër ji waa mm. amoo foo daal te jëkkër ji buy woote kenn moo koy may foofu mu woote mu wax maanaam amu fa benn connaissance euh, waa ji moom rek moo fa nekk amul ku ko jàppale amul sénégalais bu ko taxaw amul dara mm. donc ñoom ñi nga xam ne ñoo autorités yi nekk foofu rek ñoo ko mën taxaw parce que doomu Sénégal la quel que soit alpha mu def ak mu ñàkk def dañu ko war a taxaw te taxaw na ne defuma dañ ma dañ dañoo sama saak ak saaku keneen mm. donc foofu moom ndimbaluk état rek moo fa mën nekk ah. ndimbaluk état ñu ciy woo Amadou Ba mi nga xam ne premier dossier mu ngi nii euh, yéen nag yéen a jox Amadou Ba nag woyof na loolu te dossier bi daal leeragul man dossier bi ah. convaincre ma de. mais mais El Hadj quelque soit yow man déggoo ma de. même su defee. man déggoo ma de dama ne. Mm. même bu doon moo def. Mhm. xam nga njaayu jàmbaa laa wax dama ne. bu doon maar maara deytaali dama ne dafaa rotalu bakkan laa wax rey fa nit. Mhm. doomu Sénégal yi nekk ci kaso yi nekk ci bitim réew. Mhm. dañoo war a wax nag ci seen i kaax. ñenn bu dee ñi ngi nekk xëj na ci benn luxe entre guillemets mais mbir mi tarul yenn tar yi comme ñu nekk Europe ak yooyu. waaye am na ay doomi Sénégal yi nekk fii ci tundug Afrique gii diggante Libye Ndakaaru Njaay gel Jóob ak Gàmbi gii ci ay kaso yoo xam ne day mitti. ah waaw mais ñooñu nag alaaji ñooñu alaaji seenu ëllëg kenn yoru ko ku dul kilifa yi di. ñi da mhm. ngaa ne dañ leen a fal nii pour ñuy nelaw. Mhm. boo déggee ministre affaires étrangères et des sénégalais de l' extérieur mais daanaka du sénégalais yi nga xam ne sax ña ngi ca gàmm. Mhm. mais ñi nga xam ne alaaji ñi ngi bëgg am passeport mu tëleen. loolu ñoo tax ñu teg fa suñu amba suñu ambassade yi. nee na ñaar ñi nga xam ne dañoo nekk ci kaso yi. ñi nga xam ne feebar nañ ci réewu nasaraan yi alaaji ak ñi dem ba am ay jafe-jafe bëgg ñibbisi. yow fan ngay daw laa xam. ah ci seen voilà loolu moo tax ñu leen di fay di. kii nag moom it nag kii itam kaa am loolu la. Sénégal daa bëri affaire de. xam nga am fi ne li jaadu mooy su ma jógee fii dem dem tugal. di daani doole. dem tugal di daani doole li ma war a jëkk def mooy bu ma ne cëpp ci réew ma ma dem bu ma xëyee ci ambassade bi pour signaler wu ni man maa ngi fi en tant que doomu Sénégal maa ngi tudd du Mamadou Mansour Diop en attendant amaguma liggéey mais maa ngi logé Médina. ñu lu am daañu ko xam xam nga loolu yomb na te loolu mooy minimum loolu moo tax d'ailleurs ñu taxawal ambassadeur mais ñi ëpp ci daanaka 42 euh, pour cent yi dañu fay nekk di baagan dem ko ñëw te diplomatie sénégalaise bi du yëg ni ñoom ñu ngi fii du ci këyit du ci doxalin du ci mandarga. waaw. danaat yow ñun ñoo xëy na alaaji danaat waaw waaw mais mais mais taxul mais dara bu ñu amee ay jafe-jafe. waaw war a taxaw. waaw réew mi nga juddoo rek alaaji am na fi ay xale yoo xam ne amuñu kayitu juddu. Uh-huh. balaa seen ndey seen bàyyi di leen toppatoo ñu dem ba tollu seen deux war a def examen. ah waaye est-ce que dina tax état bi ne ñii comme que moom déclaré wuñu leen ne officiellement ay sénégalais lañ nañ ñu may. <laughs> dégager seen responsabilité ci ñooñu. Ah, déedéet maanaam nañ génn réew mi. waaye am na luñ dul man it <laughs> boo amul këyit. <laughs> non boo amul këyit. am na lu dul man it daal laa en tout cas soxla na ndimbal ak taxaw. waaw te lii moom. kon jaara euh, faam nee na wax nga dëgg. alaaji maam jaara faam. waaw on a. walaay alaaji wax na dëgg. a yooyu nag yenn ah, en tout cas daal alaaji. Hmm. ah nañ toog rek xëj na autorité yi moom. Hmm. ñu ngi ciy bàyyi xel. ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax incha allahu a nañ bàyyi rek. waaw dañ def enquête ba xool saag ba daal ah, saag ah. saag ba daal du ko dugal ci loxo waa ji. xam nga alaaji lu mu gën a ragal. danoon dem waaw. eh dafa ko ñu publicité. ah. nañ na publicité ñëw. bis ko. Magnier électroménager showroom au multimarque. Congélateur, coffret de 100 à 700 litres. Congélateur 6 à 7 tiroirs. Plaque aluminium. Des téléviseurs 24 à 75 pouces. Des splits, muraux, armoires et portables. Des cuisines 4, 5 et 6 feux inox et blanc. Machine à laver 5 à 17 kg. Des salons, des tables TV, moquettes, tables basses. Des ordinateurs fixes et portables. Des téléphones portables, tablettes électroménager. Toutes les grandes marques sont disponibles chez Magnier Électroménager. Samsung, LG, Indesit, Ariston, Hyatt Technolux, TLC, Media, Grey, Aztec, Sharp, Starix, Sense, Electrocool. Nous sommes à Castor Bourguiba, diggante ak Anpêche. Appelez-nous au 33 864 27 79 ou le 77 549 90 90 ou le 77 096 38 38 ou le 76 126 727 14 14. les téléviseurs LG 43 pouces à 190 000 francs plus support offert. 32 à 115 000 plus support offert. Cuisinière day jeex. vraiment. jox nañu benn numéro de. Ah. Ah, la tudd. Maël Thiou. non Maël Thiou euh, xam nañ ko mais est-ce que prison ba parce que waxuñu lu leer parce que euh, ci niñ ko jàngate dafa nekk ci ci ci police ba tey donc euh, je pense pas que ni mu ngi ci prison bi de façon ñun ñoom ñu ngi bokk ci ci ci CEDEAO donc accord yi nga xam ni dañoo wax am assistance ci ci ci première heure interpellation bi dañ cee war a bokk donc nañu jéem a woo numéro bii nga xam ne jox nañu ko bu avocat bi peut-être mu mu jéem ko taxaw. est-ce que est-ce Gambie bokk na ci euh, réew yi tënk këpp kooku yi. nga xam ah, réew CEDEAO yëpp la. ko jàppale daal rek nañ ko jàppale rek. loolu Sénégal la doole <laughs> nee na numéro boobu boo ci wotee du dem. numéro bi nga xam ni moom mooy woo soxna si. waaw nee na moom bu wootee du dem. mais moom numéro bi rek moo koy woo moom mu jàll. mais daf ñu waroon a jox ñu essayé. numéro bi naa woo soxna si kay man maa ngi numéro. man maa ngi numéro. ah en tout cas day day en tout bii day war nañ cee taxaw de. Hmm? ci taxaw de. taxaw de à la deuxième tës bi. waaw. tëngeej la ndaw si. yor na ay chaise valeur au quatre cent mille. moom chaise yooyu moom nekkul ñetti chaise nekkul ñeenti chaise dégg nga loolu. waaw benn waaye ñëw ne di koy jox ko carte d'identité mu ne doom ja topp ca ñu xam kii fan lay wàccee chaise yi. waaw ma <laughs> Baba Kumanaar nit ku ñuul la ñemeta ay. <laughs> alaaji waa ji moo dem ba fekk am xew. Mhm. taxaw ak bi ci xew mi. wàcc chaise waaw. dégg nga loolu si dem ba yegg ci xew mi taxaw. waaye ay. xoolal alaaji laal juróom juróom benn seize. wàcce ba doomu ndaw si xam xel ne. kon xew mi fii la wàcce mu ñibbi. mu yéegalaat ay seize am ci sareet. waa. alaaji loolu mës nga ko gis. carte d'identité ba nag. John Gomis moo ca nekk John Gomis. dañ koy for. mi ngi judd 1972 ci Ndakaaru Ndiaye Jël Diop. préfecture Ndakaar lañ dem xam nga rey nañ John Gomis mi. adresse su John Gomis mooy 258 Grand Yoff. rey nañ ko ndeysaan. <laughs> man nag léegi alaay xaw ma dañoo tuxal xew ma ba muy wàccee lañ ne yenn waat leen saisi xew ma tuxal <laughs> kon yow waa yi <laughs> xam na ni <laughs> kon même daf koo luwee mën ni ko am na ñuy sàcc saisi jàmbur léegi nag yow toppal ma ànd ànd leen ba mu xam xew yi am doom ji sax daa demoon ñëwaat mu ne ko loolu topp ko acca topp ca mu daal di koy topp doom ji ëlbati ko toppaat waa ji ak sareet bi hmm? mu dem ba ci am xew mu laal frein dégg nga Chérif nee comme film li nga wax nii. non dafa doy waar. c'est-à-dire comme théâtre. la ñuy bind de. <laughs> scénario la ñuy bind ci wàllu série sénégalaise ni a bind <laughs> ba ca xew ma laal frein fas bi taxaw. doomu maire bi taxaw de. mu wàccee muy wàccee. <laughs> ci xew mi xam nga xew suba teel gi. maire yi ak sen yu oyof. duñ ko sax faale dañuy. la pour ñoom ci xew ci xew mu def baas. waaw mais nit ñi kenn du xam kan lañ yónni pour mu jëli seize foofu mu wàccee ay seize wàccee wàccee ba doomu maire bi def demi tour ah oui mu laalaat montage <laughs> yéegalaat seize yi dem valeur u ay quatre cent mille francs yóbbu na ko dem naa moom. ah yóbbu na ko jël carte d'identité jàmbur John Gomis. <laughs> waaye John. né en à Dakar adresse Grand Yoff. ay te carte d'identité bees yi la. yu Ablaye Daouda Diallo la de su maire ana maire bi. dañu sàccoon sama sancheuse maa ngi maa ngi dëkk Tëngéej daal Rahman waaw. waaw Daaru Rahman laa. mais dañoo sàcc sa nu mu demee. waa ji dafa ñëw. Mm-hmm. bi mu ñëwee fekk chaise yi dama ko yóbbu location mm-hmm. bi. ma ko amee léegi sax matul un an. Mm-hmm. chaise yu bees la. man bi mu ñëwee ma ko dañ ko luwee mu ne dañ ko luwee ma ne ko waa mun ne ma man suba laa ko soxla woon dañoo am sarax ma ne ko dangay bàyyi koon ba suba nga ñëw fekk ñee indi ko mm-hmm. buñ ko indee bu subaa boo ñëwee di fi fekk sama doom ñoom ñoo ko gérer mm-hmm. boo leen fi fekkee ñoom nga waxanteeg ñoom mu ne ma d'accord mm-hmm. bi mu demee ci ëllëg si mu ñëw bi mu ñëwaatee fekk sama doom yi dem na jàngi keneen ki la fi fekk bi mu ñëwee mu ne ma fii laa dëkk ci bayaal bi waa ji moom xàmmee naa mhm. loolu sax moo taxoon sax sama xel xawoon a dal tuuti mhm. mun ne ma chaise yi ñaata chaise la ma ne ko ñaata nga soxla mun ne ma quatre-vingts ma ne ko d'accord léegi nag bi muy ñëwee fekk ñi ko luye woon indi ko biñ ko indee mu ne ma mat na cent ma ne ko waa mu ne ma léegi cent yëpp laay jël ma ne ko léegi sama doom bu góor bi ngay waxanteel su ko defee ngeen ànd ba fi nga xamante ni nga am xew mhm. mu xool ko mu xam ko bu baax bu ko defee mooy dal xel mu ne ma d'accord léegi bi mu ñëwee nag moo sama doom bu góor bi di yëpp chaise yi ci sareet sama doom bi taxaw ma ne ko dem nga mun a ma déedéet dama ne ko garaawul ma ne ko loolu kenn du ko def dama nga topp ko léegi sama doom ji topp ko topp ko ba ci cérémonie boobu muy wax ne ko moom cérémonie boobu da koo def prétexte rek céré cérémonie boobu jotewul ak moom dara. maanaam cérémonie keneen la. waaw cérémonie keneen mu taafantaloo ci léegi sama doom bi topp ko ba gis ko mu taxaw ba commencé wàccee sax di teg ci suuf sama doom bi ñëw ne ma gis naa ko mu jox ma carte d'identité carte d'identité baa ngi nii. waa jox la carte d'identité ma jox. ma xool waa ji ci boppam moo ma jox carte d'identité jox ma avance xam nga. Mhm. bi ma ma joxee carte d'identité bi jox ma avance. daal di dem sama doom bi na ma gis naa ko ba magam bu góor bi wàcc kooku moom danaan def fu mu yóbbu chaise yi da koy topp xool ko xam nga ba mu leer ko ni fii la parce que ñun suñu secteur boobu rek nañ daan loué chaise yi daawuñu ko loué feneen waaw daawul génn suñu zone bi daal te ñu ko daan loué ñëpp dañ koy dañ leen di xam hmm. léegi bi loolu amee ma ne sama doom bu góor bi demal nga xool bu baax ndax chaise yi mi ngi foofu léegi yow moom fi mu wax cérémonie bi ak euh, fi ngeen dëkk dafa génn seen zone non génnul zone bi soriwul noonu génnul zone bi léegi nag bi loolu amee sama doom bu góor bi dem xool xool gisul mu ñëw wax ma ko ci guddi gi ma àndaat ak moom léegi bi ñu demee ba ci cérémonie bi ñu laajte ñooñu ne effectivement cérémonie amoon na fa mais chaise yi ñu loué ma jël photo chaise yi wan leen ko ñu ne ma couleur bi jëluñu ko ñun chaise yu bleu nañ fi loué woon du chaise. yow sa chaise sama chaise dafa beige. chaise yu bees takk la. waaw ah. c'est waaw chaise yu. waaw caoutchouc la mais motif bu mujj bi la te chaise yu bees la. amagul sax un an. est am na ay mandarga ay signes. waaw waaw parce que def naa ci ginnaaw euh, mandarga def naa ci soxna maam jaara def numéro téléphone bi tàngal naa paaka tamit ñaas côté côté yi ak ci ruq bi yépp ñaas naa ko daal am na xàmmeekaay. léegi moom sans chaise yi kon buñ ko yóbbu léegi ay yàgg na. tey la am une semaine. tey la am une semaine waaw tey la am une moom jox na la moom bi waa ji moom boppam la la jox wala carte d'identité man xam naa xam nga des fois carte d'identité yi photo du du nduroo trop trop. mais bi ma xoolee comme que cérémonie la ma wax léegi bi ma xoolee gis tur bi ak sant bi. ma ne kon que ñoom des fois euh, chrétien bu ñu amee sarax dañ ko loué ñaari fan ba ñetti fan. mais day fekk ñu xam ne léegi nag ma foog ni moom la léegi nag ci ëllëg si bi ma toogee sama xel dalul. sama beneen doom bi na ma kon kay bi mu la ko luyeeg léegi tey la ko war a indi toogal nga xaar bul yàqante. mën ko tey bàyyi ngeen di waxtaan. waaw daf ne la daf la koy luyee pour un jour pour deux jours pour une semaine ñaata la wax. non daf ne ma daf ma koy luyee rek suba dina ko indiwaat. maanaam 24 heures. waaw 24 heures. dina ko indiwaat léegi mu jox la avance tamit. waaw mu jox ma avance ak carte d'identité bi. avance bi mooy comme avance normale li muy joxe. waaw daf ma jox 5000 euh, mu ne mu des 5000. 100 c'est 10 000. waaw parce que chez 100 francs laa koy luyee. léegi nag mu dem bi mu demee nag léegi mais jour boobu man sama xel dalu léegi bi sama xel dalu nag sama doom bi dem vérifier gis ni du moom ma daal di jóg. léegi yow carte bi. waaw ah. anam. carte baa ngi nii. mu ci yow waa mu ngi ci man. Euh, turu kan moo ci nekk. turu John John Gomis moo ci nekk. John Gomis. waaw John Gomis Grand Yoff la dëkk. est-ce que jàpp nga ne. moom carte la moom waa ji la. waaw parce que xamuñu dañ fay doog a dem nii pour man xëy na te dafa bëri ñu fay doogu toxu si pour man mën na defar feneen carte d'identité am ñëw toxu si foofu mais du tee moom lay doon daal. Mhm. loolu laa jàpp. mais daal carte d'identité bi John Gomis. waaw moo ci nekk dëkk Grand Yoff. dëkk Grand Yoff waaw léegi nag dem naa police. Uh-huh. déclaré naa parce que bi may laajte am na ñaari femmes yoo xam ne suñu ginnaaw def na leen kenn ki cent chaise am la yóbbu ci mbootaay chaise mbootaay la yóbbu keneen ki mu yóbbu quarante chaise am léegi man li tax ma ñëw sax mooy pour dénoncer ko parce que ni mu def ñëlee xëy na ñee bu ñu teeloon a jóg xëy na man ndax chaque jour parce que chaque jour man damay déglu rajo mm-hmm. damay déglu euh, kii mm-hmm. seen rajo bi chaque jour dama koy déglu te toujours xam nga damay prudent daal man bañ naa ko ba dama naan leen dama leen di mettre en garde daal parce que damay déglu rajo damay xam li ci xew. mais xam nga lu war a ñëw bu ñëwee rek. waaw dalay bett daal. sans chaise. investissement la. parce que chaise parce que borom kër sax toujours daf may mettre en garde. chaise unité bi ñaar ngeen koy jëndee. chaise yi man 400000 euh, lañ ko jëndee. chaise yëpp 400 yëpp 100 yëpp. cent chez yëpp quatre cent mille waaw daal léegi nga nga koy luyee. Euh, benn cent franc waaw par loolu moom moom moom c'est waaye xam nga rek lu war a ñëw man nag boo gisee mu ñëw xam nga. pour sama moromu jigéen ñi xam ne ñoo nekk Daaru Rahman. Mm-hmm. di louer chaise nañ def attention parce que man li ma dal. mën na leen a dal noonu boo gisee coono bi yëpp ma def ko fi pour ñi nga xamante ni yoon nañ chaise di ko loué bu waa ji ñëwee di leen loué chaise indi sareetam indi keneen nañ ko dénoncé. Ah, waaw waaw. yàlla ji na ku ma yónnee message nee na ma lii dal na yaayam ñaari yoon. daa yow bi mos nga ko fee jàllale. yoon yoon waaw waaw ay chaise mais mais te ba pare alaaji. Mhm. xam nga yow mënoo wax ne yow man sama waa kon rek laay loué. déedéet loolu mënul nekk. Ah, da ngay ngay luwee rek rawatina koo xam ne yow topp nga ko ba mu yegg cim xew. Hmm. koo xamul kay da nga koy topp ba mu yegg ci xew. Hmm. dëgg yàlla ba wàccee nga dëpp. kay te yow itam loolu def nga ko waaye léegi nit alaaji fan lay muccee. wax dëgg yàlla. ah <laughs> yàlla waaw. donc yow ah! waaw waaw aay na waaye bu demee fee dina xam ne wallaahi yàlla ko gën a aay. Uh-huh. ba mu dem fële ba ñeen ko sans saisi. Uh-huh, uh-huh. te du fas bi la ko yenoon bi yoon. bee fee. dinañ ko ko yéen tamalaaka yi duñ ko may loxo. dinañ ko wax ni ko yenul yëpp ba pare xoolal John Gomis mii mu ci rayaale nii. waaw waaw da lay leer ni John Gomis mii nga xam ni kooram gii la tal. ak waajal nga la xam yii. nga dem jël carte d'identité jàmm xam nga tey kii tey buñ doon enquête enquête alaaj hmm. te police maa fekkee rek la xam. Hmm. waaw waaw maa fekkee ak preuve. ak police it kayit ak preuve. Hmm. ñu ne ko sa carte bi daal maanaam mi ngi nii. dëgg yàlla nanati nan John Gomis waaw nga ni John Gomis sàcciwul <laughs> non John Gomis yoonam da cee ne <laughs> adresse Grand Yoff kii boo demee kii te boo demee li tax waa ji dem ba Tëngéej waaw <laughs> fu sori la jóge mooy yow fu sori la jóge for carte d'identité jàmbur ñëw jox ba pare ba pare ba pare dafa ay de dafa ay dégg nga ndaw si nee na da koo jox avance loolu ngay wax six cent francs jox na ko avance cinq mille francs bu <laughs> demee jaay ko ñaata la ci am. ba pare xoolal alaaji wuy ma. luy saret diggante bu gàttalee leen da koy tegaat ci kaw saret bi. puus tuuti teg oto. demal ko oto baa ngi mu teg woon. waaw benn mais comme que booy bi topp na ko. oto yooyu oto yooyu di daw diggante Mbacke Touba. Pouge Mbacke. waaw yooyu ak ñoo mën a yow ay seize sax. oto yooyu. seize na ndeysaan. waaw léegi ba pare kii tam ñaas na seize yi yow léegi yow léegi saisi ban njëriñ la la mën a am. da koy ñaasaat. ñaasaat. Ah, ñaas effacé ñaas rëdd lay def. léegi waay jëlee léegi yaakaar rek la def. kuy ñaasaat. xam naa daal amatul ci mim réew. Ah, waaye Amadou Makhtar Cissé day wax yi mu wax nii nag ànd naa ak yërmande de. Mm-hmm. nee nañ gars yi élément Sénégal yi bu leen di coupé clients yi. ci week-end gisoo li mu def Joal xanaa koo coupé ci week-end alaaji koo xam nga lundi rek la mën a la mën a mais nit mën nga ko coupé lundi alaaji mm-hmm. lundi ci suba mm-hmm. ngoon ngi xëy na yàlla xéewale ko mu daw fay ci lundi bi sax ñu indiwaat courant oh, yow ku social ni musta am dafa dem Joal ñaari téeméeri famille ah. mu nii ah. eh, fi ñu dëkk dafa sippat benn benn kër yi ne ci biir quartier te amuñu courant mu def benn plan bu tudd yeesal wala euh, woyfal kenn ku ne parce que nee na xëcc courant bi dafa am ay frais yi muy laaj dañ ñëw indi la courant poser la sa euh, compteur woyfal gratuitement léegi da ngay commencé nag dem jënd sa carte si yow selon li nga bëgg a nga koy consommer ah macha allah deux cent familles ñaari téeméeri famille am réew bu doole yi tolloowul ku fa ne dee kilifa da ngay social mhm, mhm. kii day socialul moom kii <laughs> sàcc bi sa sa faux John Gomis la. <laughs> xoolal boobu cancer bi dëkkoon Thiès loolu si cancer waaw waaw waaw waaw. dajale ñoom gaa yi di ko dajaleel dajaleel mooy bi nga demee gàmm ga. grand waaw waaw bugaan jël ko en charge lépp. alhamdulilah. social. mais booy luyee seize tam alaaji booy luyee seize. Hmm. mais ki ñëw luyee si seize est que nekkul ne tam tam luyeekatu seize waxtu yu jot na ngir ñuy jël carte d'identité ki ñëw. amul ay sama nijaay ma yónnee carte d'identité ma ngi nii ma koy tayle wala sama yaay moo ma yónnee carte d'identité laa indi kii ñëw di luye carte nga jël carte d'identité alaaji xool fotoom ba mu leer na ne kii moom la. mais photo est-ce que leer na. photo yi de bu eh, nguur bi mu bëggee mu leer leer na <laughs> parrainage gi bi ñu bëggee carte d'identité jaar yoon ak numéro yi signature càmbar nañ ko mu leer nañ mais alaaji nit warul jël carte d'identité ñëw taxaw rek. ne la damay loué jotul ngay loué koo xam kese waa koñ ba. ah mais loolu mais ah, mais nooy def. koñ ba tamit dañoo mën a dëkk ci xew. di ko loué 100 francs. dëgg ñaata temps ngay loué pour sa xaalis génnaat. dana bari. loolu investissement pour jën jóg dajale. Ah, loo am njëgu ataaya la. mais seen ah, ñu boob ko sax. Mhm. dem ak moom valeur 400000. waaw. lu mu bëri bëri bëri boo ko luyee am na nu muy demee. alaaj yow bu dee benn cent franc ñaata alaaj. est ce que nekkul dix mille. dix mille franc waaw dix mille nga wuti nga wuti kañ ngay dabar quatre quatre cent mille ñu ngi ko jëndee woon. du gaaw donc ñi koy jënd utuñ ci dara dañ ci ut rek lu ñuy naanee ataaya. waaw ak ñoo xam ne sax dañ ciy def dépense. ak daw dépense rek. ak bu ñu téye woon quatre cent mille dañ koy lekk. du leen fee defaraat donc lii day nekk investissement à long terme. kii xoolal kii nee na def nañ ko. kàddaa jàmbur lañ ma indil gis nga. noonu ci lañ dëkk. Hmm? ci lañ dëkk. alaaji yow ni ngay xëyee di xalaat di dagg éléments yi ngay jàllale tës <laughs> di xalaat li ngay wax fexe bégal say auditeur am na ñoo xam noonu la ñuy xëyee di xalaat nas palang pour sàcc. di bind ay scénario boo demee ci aari bi nekk buntu CICES gii. ak bunt université da nga gis ñu sañ sew rafet loolu dàq la li ñu sol fop mhm. këy mhm. sàcc dong la ñuy def amuñu métier. dugg ci bus yi. dugg ci bus sàcc. rocci téléphone wàcc benn arrêt xaaraat beneen bus duggaat rocciwaat. dafa dem ba par parfois euh, receveur dañu leen di xàmmee. da ngay dugg rek ñun la wàcce. ni ñu képpee téléphone seen ñaari baaraam yi. Ah, kii nee def nañ ko ko deux mille deux mille deux mille dix-sept. soixante-seize am. waaye yow bañ a def. jërëjëf hmm. wala kii nee na ma solution mooy luye koo xam boo koy def doo ci génn. doo oh, waa koñ bi waa waa koñ bi mënuñ di xew chaque jour alaaji. ah mais mais mais mucc tamit du yomb de bu dee da ngay luye n'importe qui moom. te léeg-léeg benn xew. am fu sori bi moom. alaaji mhm. léegi mu mag am stade waaw ñu luyee chaise yi ba mu jeex dañuy mujj du dugg ci côté boobu dem ba Pikine jëlee fa ay chaise mhm. ci ay camion indi waaw non dañoo maanduwul rek. surtout ci jamonoy jamonoy koor gi di ñëw conférence ci la yi nag di sàcc yi nag ci la de. ah man de jaaxle naa di même réew de xaw ma nan la fi nit di mucce. Hmm. dem ba ca xew ma wàccee seize yaa <laughs> fu ñuy sàcc di tëgg noppam koy ay chaise ma jotul wax Doudou Diagne joni joni nee na looloo ko rey wàccee bi <laughs> dem ba ca xew ma taxaw wàccee ay chaise nandite la xam graaw xam nga kii dugal na dugal na dugal na dugal na dugal na euh, joon rek ji nandite la nandite la de ah mais déggal kii naan ma doom jaafa waroon ne yow mën ngaa luye saa yi boo luyee nit chaise dem pëp ca xewam ba mu jeex luye fa sa doom teg fa sa doom waaw loolu daanaka da ngaa luye waale doom ji loolu mënul ne. laa ilaaha illallah ay man man man. man réew xam nga ne xam nga ne John Gomis mii dugal nañ ko ni Ruba. ndeysaan. Ah? léegul ci ñun nag. Ruba ma daane loon doomu tubaab ba. <laughs> waaw Ruba nu ma ko defoon. Ruba Gueye bëgg naa koo xam de. Ruba Gueye. waaw da liggéey ci kër tubaab bi. waaw. non comme ni ngay fabee kii sa doomu njaati ki rek doomu tubaab bi ci tànk bi dem. Eh? <laughs> Ruba dugg dugg dugg dugg musiba mbaabu kumba kay nii lii kay xaw ma fu mu koy waxee. fa la jóge ah, léegi man damay laaj. Rouba Gueye Lamine Gueye nag nee na sant Gueye Rouba Diop. <laughs> léegi bu daan tànk demee nuñ ko def. <laughs> ah mais xam nga ne tubaab yow ci jamono yooyu nag yow tamit ah, xam nga ne tubaab yi yow tamit. waaye kii nag dafa jaaro boo xam boo ko takkee da ngay am xaalis. noonu da ko dakk. moom ko jarul muy defar bu ko takkee am xaalis jarul muy defar. day jaay. day jaay jaaru day muslaay dama ne. Mm. dama ne jaaru bi day jaay. waaw. njaay pour am xaalis. waaw moom lu ko takk rek. yow musulaay kubbeekaay wërsëg bayre ak yeneen lépp ci mu ngi ci biir jaago bi. <laughs> mu koy mu def ko page Facebook. waaw léegi tàllal wax la solution bi maa ko gën a eh, ay ci bayre ëpp ko bayre ma léegi bu dee moom bayre bi rek kon lan lay dem ci Facebook di publicité <laughs> du benn. defal ni ma waxul alaaji. kubbeekaay kubbeekaay. moom bu dee moom jaaro bi day day ubbi day ubbi nit. lu muy daw kon bay daanu xanaa kon moom ubbeekoogul ba di ko jaay. parce que deful te yàlla tax. <laughs> waa léegi moom bu dee jaaro bi day joxe wërsëg alaaji day da koy takk toog ci digg lalam bu mu génn di. na bàyyi jaay jaar sax. non non non ndekki léegi lépp fa koy fekk. oui ah muslaay. <laughs> lii def nii mi ngi weer bopp boppam sax te bu yàggee sax moom <laughs> musluwaayam dee. le fait que yàlla def suñu xel ci moom rek mooy muccatul. non non est-ce que defu ko te yàlla tax. dégg kii def ay kii def ay publicité est-ce que amul prix jaaro bi. M 77. ah ah El Hadj bul tudd nag lettre yow nag balaa moo xam ne ñun. <laughs> ah waaye El Hadj nag bu ñu dugal ni ni ruba. non. <laughs> sama sëriñ bi bu la ñaan lee nga bari xaalis. ko loolu. non non non. lii laa wax lii. sëriñ bi nee na boo takkee jaaro na da ngay am xaalis. te jaaro bi da koy weccee koo moom xaalis da nga koy jox xaalis muy dajale. <laughs> muy dajale dajale te xam naa ne da ci daw dépense ak lépp. waaw moom du ko takk rek toog ci digg laram <laughs> balaa maa gëm ne jaaro bi alaaj day indi xaalis dëgg-dëgg bu mu ko takk génn di lijjanti de bu mu lijjanti na ko takk saay bu xëyee sango ba set toog ci digg lalam. ajaa defaral ko sur le plat. andi fekkaat ko fa reer ba moom daal julli na koy wàccee lal bi. xaalis bii dugg si ndax takk na jaaro bi yàlla yàlla bay sa tool eh. sama maam day kam fekkoon ca jàkka ja subaa ngoon ca bëccëg yi julli ci kaw julli julli ci kaw julli même ginnaaw tàkkusaan yi nga xam ne dañ ne buñ fa naafale sax julli ci kaw julli <laughs> lam ko njëkk a laaj mooy lan mooy sa métier lay mu ne ko lii rek de ndax li ñu dikk mu ne déet liggéey da nga ko ciy boole hmm. daan doole ñàkk da ko ciy boole ndax xoolal alaaji hmm. nombre d'heures yi ñu borom bi jox hmm. ngir ñu jublu ci moom ak nombre bi mu ñu jox. Mhm. ngir ñuy daangi daangi. Hmm. di kër kër yi ngir am kër. calculer ko. Hmm. xoola ba nga jullee fajar ba léegi nii. diggante bi da nga koy julliwaat. ba deux heures. Hmm. ma de. waaw ah. cinq heures demi six heures ba quatorze heures. diggante boobu alaaji. yàlla sàkkuwaatu fa beneen beneen waxtu wu julli. déggoo ma de. diggante quatorze heures ba dix sept heures. mu laal foofu beneen trois heures de temps te gis nga eh, jëye fort. yàlla léppam ni mu ko programmé moo doy waar. diggante julleeg fajar ba quatorze heures alaaji mhm. xam nga diggante boobu la nit ñi nekk ci digg liggéey liggéey liggéey xoola yàlla nombre d'heures bi mu fa def mu yaatu lool mais calculeel diggante quatorze heures julli tisbaar ak mhm. takkusaan bi mhm. liggéey ba bureau mi ngi commencé de wàññeeku nit ñaa ngi commencé ñibbi nga calculer diggante dix-sept rek ak dix-neuf heures deux heures de temps boobu da ngay jógee bureau ñibbi deux heures de temps bi nga am ci diggante bi embouteillage yeeg yooyu nga yegg timis jot mu ne la diggante timis ak gée nag une de temps rek doy na ci. Mhm. dégg nga loolu. Mhm. boo jullee timis ba pare rek. xëj na boo xéewloo mën nga tey tegum reer. xam nga li ma la. naan lu tàng teg ci boisson. waaw julli gee. déggoo de. waaw. wala nga julli gee lekk. Mhm. wala nga lekk julli gee mu nekk sax entraînement ba étirement ba ak yooyu. waaw waaw waaw la ah, sax. ok waaw moom laa la expliqué. Ah. une de temps. imaginez bu defoon diggante suba teel. ak julli bi ci topp une alaaj kon ñun fii ci rajo bi li ñuy ni di julli suñu éléments yi du pare. julli rek. nga julli ah, yow léegi da ah. yow sa jaaru bi daal day maye xaalis <laughs> toogal sa digg laal bañ a xëy toogal rek. <laughs> dañ toog. Eh, man de bu yàlla. bu soob yàlla jaaxee dina lamb ah dina bind dina bind ba sonn xoolal suñ kër kër kër kilifa diine alaaj mhm. kan nga ci gis te amul tool kenn ñëppay bay ah waaw ñëppay bay ah. ah waaw baax na ñoom léegi nañ léegi ñoom nañ ko téye ci jaaro bi rek hmm. na toog noonu daal rek alaaji balaa maa gëm ni jaaro bi aay na hmm. man daal man ci rajo laay wax bu dee daal am nga yéene jàppale ma yokk sama bayre bi ah. ubbi ma wërsëg yokk hmm. Hmm. waaw man maa ngi nii candidat laa dégg nga loolu alaaji hmm. mais léegi nag balaa nga may jox sa jaaro boobu yow nattu ko ci yow ba pare waaw na nga fexe nag ce que amul alal ba doyal bëgg dimbali jàmm yàlla te yàlla rek tax kon du def publicité day jaay jaaro day jaay kon du def publicité comme day jaay nag xamatuma ci dara waaw ah, day jaay alaaji jaaro bi boobu nga ma fa paa boobu ca marché ba te mu doon jaay Eh, garabu sàcc garabu sàcc ba. ñu sàcc téléphone. te ñu sàcc portable ba garab ya. da koo fàttee defal boppam. da koo fàttee defal boppam. yenn saa yi nag. wolof nee na saa tudd woon boppam. mani defal ndànk rek. mi ngi ni ni machine bii dàq sàcc. mani bi ñu defaroon de bitim réew indi ko fii Sénégal. waaw <laughs> waaw waaw ñu sàcc ko aéroport. <laughs> machine bi lañ sàcc aéroport. dafa am génn góor goo xam ni. Mhm. benn shérif waaw. coowal Gàmbi la ba mu njëkkee am coup d'état bu njëkk ba. waaw dëkk bu ñëpp di bër bërbëri. Mhm. Farafeñe. waaw di daw Medina Sabax gars yi gàddu éponge yi ñu naan ñu ngay génn dëkk ba di daw ndax ku d'état ba amoon ca biir kaawu wu militaire wu Farafeñe ba. waaw moo xale bu ndaw ci ëttam. li saxaar. Mhm. Mhm. ne nii ne nii ne li saxaar bi waxuñu ñu dem de. soxnaa bi topp ko waaw Serif dañoo war a génn dem dëkk bi ñëpp a ngi dem mu ne dama ne li saxaar bi nee na bu kenn dem jël kurusam rek toog ci ëttam. waaw waaw. allahu rek toog fa rek. nii nii nii da nga jékki-jékki rek soldaar yi. Mhm. biir këram lañ ne jirti bit ñu ne voilà soxnaam yi daanu kam di diit ne wuy sama lii leen la doon wax nag sërib léegi. Mhm. ndekete mooy militaire yi daw dugg ci biir këram doon ñaan dimbal pour téléphone camp bu mag ba ca bi ak Yundum. pour mu yaa fi sës il faut nga jox ñu téléphone gaaw. moor doom am na am na ay soldaar yu rey ci biir. capitaine bi rey nañ ko. ci biir camp militaire. mooy attaque yooyu ñoom coup d'état Gambie ba mu jox leen téléphone fixe bi. noonu la noonu la ñu rëcce. ñu woo ñu woo ñu leen. seen fii ñu soog a def si intervention waaw kay. noonu la ñu rëcce lañ soog a ñu doon def. waaw waaw kay voilà waaw kay waaw. ñoom ñoo ñu reyoon def ci yëpp ci oto di leen wërale gam. waaw waaw gis nga loolu. deuxième bayit. aycha amaat. bii. Mm-hmm. bii bii passé nii. waaw bi naan waaw. benn doomam ne leen. comme que góor gi nekkatu fi. bàyyi leen ma def la góor ga defoo ba xam war ñoo dem wala waroon dem nit ñi commencé di daw nag di génnaat dëkk ba. waaw soldaaru CEDEAO yu dugg. waaw doom jëyit li saxaar. ne leen li saxaar bi wanuñu ñu ñu dem de. Eh, lii bal du tàkk sagar du xe. Hmm? allahu akbar waaw kay waay. moo dañu fi nekk naan xaw ma lan saabu do xaw ma lan boppam xom jaaroom bii daal bu dee ay na ne def ni sërif boobu rek. allahu man daal na na na tibbal boppam ba mu fees del ma. <laughs> da lay piil ma yëkkati sax jox bugaan pour mu ubbeeku ndax bu ubbeekoo ñu ubbeeku te bu ubboo mar de taali <laughs> yàlla yàlla dolli jàmm ci réew mi alaaj yàlla nu yàlla yàlla nu yàlla yàlla nu yàlla aar te yàlla nu yàlla taxawu waaw yàlla na yàlla dolli wërsëg yi alaaj amiin amiin amiin waaw waaw yàlla yàlla dolli ubbeeku gi bi sax moom war nañ koo xoolaat moom ndax bu fi ëppee da ngay gën a dee rek dégg nga loolu. wallaay ah, waaw ah, ah, yaa ñuul dara waaw kay waaw d' accord waaw waaw d' accord daal dégg naa bu dee daal rek moom alaaji moom tarkal tarkal rek ni nga am bay rek waaw noonu la noonu la. Mm-hmm. ñu jiitu yàlla na yàlla xare àjjana. a amiin ñu feebar yàlla na yàlla fëgg seen bopp. amiin ñi caabi fii te ginnaaw yàlla na leen fa yàlla génn. amiin amiin amiin yàlla na nu cat seexlu. réew mi yàlla na fi yàlla wàccee jàmm. amiin kilifa diine kilifa aaday kilifa politique yàlla na leen yàlla taxawu. amiin yàlla yokk. ci buumu sëy te amuñ doom yàlla na leen yàlla dimbali. may leen taxandeer. waaw sëy yi nga xam ne tam day banga banga ka yëngoog yooyu nag yàlla na gën a dëgër yàlla na neex. amiin alaaji suñu sëy yal nay neex. amiin waaw ndax koppar gi tamit yàlla nay bari. koppar gi bëree rek sëy yi day neex. Mhm, mhm, mhm. koppar ci la dégg nga waaw laaj bu saaxo nee na nabi yi daf doon def attaque manqué xaalis Ousmane dekkale ko o waay waaw kon nag léegi kon kon leen dekkale ci boobu situation waaw situation doy waar alaaji Simeer Joob a ngi noonu te alaaji Mansour nee na bu fi kenn wax nag alaaji kon kan man monsieur le maire des Parcelles Assainies mi ngi noonu <laughs> moom mi nga xam ne fi mu nekk nii kon daan na Amadou Ba daan na tamit Moussa Sy kon nag ay Mbaye Ndiaye ay Badara Diouf député ak ay Danfa kooku kenn waxu li mbiram mooy alaaji Simeer Joob borom Parcelles Assainies bu campagne locale yi dooree ñu xam ne lépp dëgg <laughs> yi bu dooree ci la waa parcelle yi xam ne lépp dëgg la barke <laughs> Rasulullaay bu ñu waree dawal fasu naaru góor yi ba wàccee suñuy oto biir parcelle hmm. laay dinañ xam ne courant du moromu piil hmm, fasu hmm. naaru góor dawa noog mbayaar <laughs> keroog yéen waa Parcelles Assainies di jommi wallaay set ba sept sept ba vingt six keroog la jommi ndax dégg naa ba six mi ngi ci ñun waaye sept laa wax man ba vingt six ah mu da ko bokkal sax ko eh, Ali Baba ko manaar madame la maire a ngi nii la petite mairesse bul maire nag ci loolu dégg nga ñu ngi nii moom moo jiite Cambérène nag ndax seen gox bi dafa xaw a <laughs> petite ma nekkal petite mère voilà di mantu laay ci bu laay maxtaar ñu ngi nii leen nag waaw le faiseur de roi ngi nii ki nga xam ne kon kum jàppale ci sinja googee nga nekk fa maire moom Alaaji Mansour Diop min màkk min min leen sul mu nawaraa ngi nii toog voilà ana la dendal sëtu ko tedd ki borom maamu barrière or ba ca Médine bandi Hachim bandi Khoureyssi Serif Ahmed Aïdara Karara euh. le